Eh, léegi incombe eh, tribunal ñoom ñoo war def moyen indi nit ñi teg leen saal atte leen surtout nag nga ne flagrant délit nga nekk flagrant délit amul même flagrant délit bu amoon am na ñoo xam ne flagrant délit mënuñ leen ko appliquer. maanaam dëkk bi nag muñ di wax ne nañ nit ñi respecté yoon nañ respecté li tribunal di wax nañ respecté li li autorité di wax te ñoom ma tribunal du respecté yoon. Mhm. tribunal moo wara a njëkk a respecté yoon balaa muy atte parce que booy atte ci yoon ngay atte. constitution au Sénégal dafa l'air ab député bu nek ci session ken mënu ko arrêter. tant que assemblée nationale joxul autorisation parce que débat grande délit daf ñuy nax parce que ñaari hypothèse la constitution bi posé alinéa 2 alinéa 3 alinéa 2 dafa né en cours de session on ne peut pas arrêter sans autorisation maintenant c'est hors session on peut arrêter mais oui on ne peut pas arrêter sauf la grande délit on ne peut pas arrêter même hors session, on ne peut pas arrêter un député. Sauf en cas de flagrant délit. loolu mooy hors euh, session parlementaire donc député yooyu kenn warul leen arrêter loolu nag dafa am lo xamante dafa am ay code pénal dafa sanctionné lolu article 112 dafa ne magistrat des magistrats qui sont nga député wala ministre procureur ak officier de justice moy gendarme yi te amul autorisation. dañ la wara a article 112 code pénal moo ko wax de man waxuma ko léegi nag ñun boobu léegi ñu ngi waxtaan nan la ñu exercer loolu parce que bu nekkee dañoo bëgg nag état de droit bu baax il faut que ñëpp état de droit mooy état boo xam ne ñëpp maanaam dañuy seen doxalin day méngoog yoon muy président de la république muy député muy magistrat muy procureur mu ak ku moon mën di noon policier ak gendarme dañoo war a dox ci yoon fii nag ñi yi yoon xam nañ ko procureur mooy commencé officier de justice yaa ne ñoo ak le service pénitentiaire parce que ñoom ñëpp partout participer nañ ci li nga xam ne moom moo xew ab député kenn du ko téye bu nekké justement à l'ordre dafa nekk en session suñ constitution nak néna Moussa naa ak député yi yi nekk ci législature bi ñu ngi sétane benn page noire boo xam ñu ngi koy bind ci histoire du Sénégal ab député bu ñu japp en session amul autorisation assemblée manam li nga cër bi nga xamante ni joxoon nañ ko député ci Sénégal setan na mom ndek par parlo setan na mom ndek calcul intérêt bopam tax Ousmane ñuy salfañe li nga xamanteni lu yag la ñu cëral ko député ci aduna yëpp aduna bi yëpp mu immunité parlementaire la immunité parlementaire ban njëriñ lay amati bu nekkee yow député fu la neexee nga japp ko waxatuma ñu la mënoo ko jàpp bu nekk session mën il faut assemblée nationale autorisée tay ni assemblée nationale bu demandé léegi dëgg deful won nañ demander ñu assemblée bu demander même crime même bu nekkoon crime assemblée nationale bu demander bu bindé wax institution judiciaire na arrêté pour ñu arrêté ko

alors le 27 dañ de repousser 27 est-ce que da euh, demande de liberté provisoire là waaw loolu laa doon laaj avocat bi c'est des questions de procédure même bu nekkee juriste là. je suis pas procédurier et puis plus la là, ngi doon woo avocat bi ba quelle attitude justement nous ñu am pour qu'on moins ñu bàyyi parce qu'il est suffisamment représentatif surtout les députés Je moog moog un Diarra Fam une nañ place de foofu avocat bi insisté pour jot ko donc pour nous, wax ci question mais de toute façon c'est une question c'est une piste qu'il faudra explorer Parce aussi, il faut que nous libérions ah, donc, le président de Fall. Mhm. Donc tous les moyens à notre disposition, plus la mobilisation des Sénégalais. Parce que les Sénégalais, ne savent xamné ñi li ñu bëgg bu amé ñun ñëpp du ñun parti politique lañ def dara journaliste dañ xey nga nga def sa caméra ñu ko fi fi réseaux sociaux dans ay télé ay web télé du fi émettre fa lañ jëm chaque jour ngeen dégg président Macky Sall mu naan leen kàcc kàcc du moo fi le jeune extrêmement donc la mobilisation fii li dal de Fall dal mam Diarra dal ces jeunes là bu nous mobiliser wul ci ñun ñëpp la parce que suñu état de droit bi du Macky Sall moo ñu ko jox ay mag ay anciens ñoo xex bu mu sax ci réew mi mom da ci bénéficier parce que bañuy xex 2011 bu 2012 bu mu accédé au pouvoir tout le monde était là il était le moins coriace dans le combat il était le moins rigoureux dans le combat il est le moins assidu dans le combat mais mon a jël bénéfice bénéfice du combat parce que mon lañ ci à l'issue de l'élection. au lieu mu saxal démocratie au lieu de xóotal ko mu ñuy les année 70. année clandestinité année silence radio année état de police pour xamante les réflexe interdiction gis nga ko concert de casserole képp koo gis ci ñoom rek ñu ngi wër ban disposition code pénal réprimer réflexe état de police maanaam nekkuñ ci liberté yi ñu ci li xoolal xel yëpp ñuy def ñuy lan koy manifestation le le le le ngeen ñu déposé pourtant ñoom suspendu une activité ndeg article 61 ndeg la période de pré-campagne. Parce que mobilisation, nous mobiliser, si nous voyons en vérité, le vrai délit dans ce pays-là, c'est le délit d'expression et le délit de manifestation. Donc la constitution moko saxal réew ni bu ñu mu dem les lois de la république juge yi nañ les lois de la république parquet nañ respecté les lois de la république nañ respecté les libertés des gens c'est extrêmement important donc ce que nous wax di woo sénégalais ci continuer la mobilisation donc pour li nga xamanteni ont ñun suñu objectif yi nga am nos objectifs politiques libérer nos otages nos objectifs politiques aussi nous mot ñu matal ko. docteur Abdoulaziz Aziz chargé de communication du PRP. docteur.